ci kanamu taskatu xibaar yi la jëwriñ bu ñu dénk ministre des femmes de la famille et de la protection des enfants ak i naataangoom di saytu ak valider programme bi tënk doxalinu ministère bi bay duppee la revue annuelle conjointe kaaraange gune yi nag bokk na ci pong ya ca solo yeneen politique yu am jëmale ko ci xale yi à partir de cinq ans ba l'âge de la majorité mi ngi ci biir ñu tënk ko di doxal ci ministère bi di ci am ay résultats yu les talibés ci lañ bokk gis ngeen jéego am solo yi ci ministère bi def ci accompagner 75 plus de quinze daara def nañ ko ci ministère bi. les enfants en situation de rue maanaam xale yi ci mbedd bi gis ngeen jéego ñu ciy def. ñu sukkandikoo ci ministre bi ay jéego yu am solo jot nañ ko matal ngir gunge jigéen yi. Euh, l' activité économique maanaam liggéeyu jigéen ñi ak la situation financière jigéen ñi mën na ko loolu moo tax ñu insister foofu. ni autonomisation économique élément bu am solo boo xamante ne mën na xeex violence faite aux femmes loolu tax ñu bëgg tey gën koo renforcer gën a fexe ni jigéen ñi am indépendance financière pour faire face ak yenn yi xamante ne mooy seen bëgg-bëgg te yenn saa ci ndigalu njiitu réew mi jàppale xale yi ak jigéen yi nekk lu ko ñor lool tey ministre bi yor wàllum jigéen famille ak kaaraange xale yi docteur Fatou Diané Guèye tënk résultat ya mu ci bile secteur ante itam di saytu jubbanti politique ya mu nar teg jëmale ko ci askan wi di ñaax mboolem acteurs yi bokk ci secteur de la famille ñu gën di góorgóorlu